ministre am ne laata mu fi bàyyeeko di dem États-Unis dimanche ji di ñëw dina defub remaniement mu di ab remaniement bopp L'Obs nee nañu bari na ci laaju sampe jëm ci ndax dañuy bàyyi Amadou Ba muy wéy di doon premier ministre am ndax dañuy jële ci moom dombal tànku premier ministre ngir mu mën a am temps toppatoo élection présidentielle 2024 ginnaaw bi ñu ko tànnee def ko candidat bu waa Benno Bokk Yaakaar moom candidat bi di Amadou Ba moo xëy nga dajju xët mu njëkk Soleil la fa def ak journaliste Soleil ca waxtaan jëm ci ndombal tànku premier ministre ki koy doon ak li war a doon taxawaayam ci réew mi ma nga fay waxit ak di leeral yéene ji ñu am ci plan Sénégal émergent ba tey ci waxtaanam moom Amadou Ba candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi 2024 yi tàllal na fay loxom ñi mu bokkal APR bay kitaa bu ne lu muy wax ngir di seet lu neex kenn baa mu koy wax ngir tolluwaayu jamono waaye woo gi mu woo ñi mu bokkal parti bi di APR dafay lu mu gëm Amadou Ba tàmbali naa baatare ay kartam journal L'As moo ko bind ci xëtamu njëkk li tax nee nañu moo di am na ñaari nit yu ko jege lool yu ñu takkal ay ndombal tànk démb ci réew mi démb naan ko Doura dib bu fekk baax ca Kolda ay ko directeur général bu LONASE jur jàng ji tëj boppu Macky Sall ka bi mu xamul mooy Abdoulaye Daouda Diallo njiital conseil économique social ak environnemental gi kaste dëgg la ci Macky dem nañu sax bay sàkku ci kilifa diine bii di Ceerno Madani Taal ak ci kilifa yu Medina Gounass yi ngir ñu wax ak waa ji Jàllo dóor ko science wax ko lu mu mën a dégg dernier roue de secours bi nag Sud Quotidien nee nañu moo di Harouna Dia njew des naw xam bin ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax Vox Populi mi ngi laaj ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye ginnaaw Mame Boye Diao ak sa Gossas di Mahammed Boun Abdallah Dionne du buubi dem yoonam ñu dem ci journal Bës Bi Le Jour sa Gossas maanaam nataalam moom la yéenekaay bi xëy def ab defante journal Tribune mi ngi wax ne dees na ko gis ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax ci bastion yi nga xam ne Benno dafa mas a am doole muy ca Fuuta di ca Fulaadu di ca Jolof ña fa daan may doole di Mame Boye Diao Abdoulaye Daouda Diallo ak Aly Ngouille léegi ci bopp sa bopp ci la taxaw journal lañ fa xëy ab taxaw seetlu mu di ñi bëgg doon président bu Sénégal ba tax ñu déclaré seen candidature ñu bari ne inspecteur des impôts yi pouvoir bi la doon la république des inspecteurs des impôts assemblée nationale député ya fa nekk journal lise ko mi ngi ñuy fàttali ne quatorzième législature bi am na at ba ñu ko sampee ak léegi li mu jàngee ci quatorzième législature boobee moom yéenekaay bi mooy rupture ga ñu fa doon wax dara amu ci tey la xeexoo yeeg xuloo yeeg xaxarante yi gën a takkarnaase ci assemblée nationale ku xam lool assemblée bi di duudu wàdd ni ñu ci yéenekaay bi ci fukki weer ak ñaar yi nga xam ne quatorzième législature bi am na ko député yu fa nekk jariñuñ fa lu bari Alioune Souaré nañu li ko waral moo di ñoom député yi ba ñu leen yóbbu ci assemblée nationale waajaluñ leen préparé wuñ leen yabuñu leen Ibrahima Ibrahima dolli ñu ci ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne yaakaar ju tas ji askan wi amee ci quatorzième législature bi du lu ñuy lam-lame sikki sàkk suur soi nee nañu amul ci ne musiba mbaba kumba moo naroon a am démb ci sphère ministérielle Ousmane Tanor ba ca jam ñaajo ubbil yéenekaay bi sphère ministérielle bu jam ñaajo yéenekaay bi nee nañu climatisation ba fa nekk doxul toilette yi ak bureau yi bu gën a sa morom nga ne bii liggéeykat yi ngi mel ne ñu ñuy mbugal ca deewaguñu ndax condition yu bon ñuy liggéey li jur situation bi yéenekaay bi nee nañu bokk na ci grève bi nga xam ne entreprise bi yore entretien bosphère ministériel jam ñaajo mi ngi koy grève ndax dañu ko amel ay arriéré de salaire musiba mbaa kumba bi naroon am démb nag yéenekaay bi nee nañu mooy dafa am benn femme bu tàngooru jàpp mu fatt ba far crise hôpital lañu mujj teere ji ak moom abonné leen ci suñu s youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi